tey yaakaar naa ne marché bi ñëpp ànd nañ marché bi ñëpp booloon nañ doon benn kàddu ne ci Sénégal ba mu dëkk suñu marché bi képp moo fi doon marché bi fay keesu jën 750 mille francs ba tey ñu koy au bonjour waa ji ne def ay ay trangam ne day yokk keesu jën 1500 kees 1250 kees yu ndaw yi téeméer loolu la ñu wax ne mënatuñu ko mënatuñu ko tey mënatuñu ko ëllëg léegi nag euh, tey jël nañ suñu. déjà voilà si ñëwal rek ñëwal dafa wax affaire bi dara ci sa wàll ñëwal dañoo am pour wax rek dañuy wax lépp ñëwal une bonne fois pour tout ñëwal. ñëwal ñëwal. ba gis nga nee na loo dund doxante. Adama Mbengue suba gu xëyee moo lay defaral. Adama Mbengue suba bu fayee moo lay defaral te suba bu ne moo lay defaral fii fukki nit lañ fi daanu par bés Adama Mbengue rek moo nu koy defaral kenn du fi ñëw di ko lu xot buñ fi ñëwee rek bala ñu fee ñëwati bu ñu ñëwee gis nañ lépp lii lii responsable albert yi yow ay doomi Kañu ñu war a wax ay lamp suñu marché bi amul amul benn sécurité amul ay gardien amul lu ñu war a wax lépp wàcce nañu am albert nag dara lañ ko ci loxo ñu ngi taxaw ñu war a pare nañ lu ñu wax sonn nañu yaa naa masse frigo bi parce que euh, frigo bi fi xamante ne moo fi nekkoon ça fait des ñu ngi daa fay ay 200 ay fan pañe 100 francs kees 200 mu defi kees 300 xaat fañ weer léegi nag maire Badara Mama Yassine bu ñëwee ne day fa fi dem ñu ne deete waaye acte bi ñëwaat euh, albe nekk fi ñu nekk ni maire ba la bokk bi albe ñëwee ne carrément prégosé na uñu ne léegi moom ab promoteur la dañuy defaral ab frigo xam nga rek jaboot bu sonnee jaaxle boo ko ne ci da lay dimbali day yàkkamtee yaakaar ne moom la nga am ko mu langaamu si frigo bi appuyé ko jàppale ko ba frigo bi pare mais fi mu nekk nii frigo bi doon coono yi ñu juntul ko masuñu ko gis parce que kees ak jën da ngay def glace téeméer ak juróom fukk fay kees gi 1200 loolu ñaata la loolu 2000 francs nga ne deeta waay ñu kees gu ndaw bi nga def 700 euh, 350 euh, euh, glace fayaat 750. loolu du mu yëpp téeméer nga ne deeta mu jël plateau ba ndaw bi nga def si téeméer galaas bu fay ko waat la téeméer mu jël prix yoo xamante yi daal abordable benn yoon jël kan nag teg ko suñu kaw nuy bëgg a dee di ko yokk nag loolu lépp nag doyatu ba te nun abi bu muy indee frigo bi nun dañ dafa ne moom mooy defar frigo bi nekk partenariat moom ak marché moom la nu mais loolu amul ndekete moom ab promoteur la gis fële la war xaalis la pompe xaalis mu ñëw tegal ñu mu ne noo ko daa xawar ñun ñii moom suñuy jën noo ko daa xawar xaalis ñun bénéfice bi mën nañu joxe suñu door mooy fay njàngami mooy fay location yi mooy jël africain yi mooy togg a añ mooy togg a reer mooy ay lay def bi euh, mu dem ñaar toog ak ak Zouem Moussa benn ba dul ñaar benn solution amul Tomono préfet benn solution amul sous préfet maa jigéen benn solution amul léegi nag fi mu nekk nii nag nun noo jël suñu responsabilité yi bopp wax dañu sonn yaa naa maar da ko sonn nag rafet wu léegi nag noo moom suñu alal noo ñu ko joxoon duñ ko dencal léegi mënatuñu ko noo jël suñu responsabilité yi bopp di dencal suñu bopp suñu alal di jëndi fële escalade dencal suñu bopp ba képp ku fi ñëw nag du ñëw du jàng laam sangalam doo génne ba kenn ba kenn doo ko génne parce que noo moom suñu matériel kala kos nag fi nga gaa denc amul fenn kari nag autorité bu fekkee dafa nekk dëkk bi nun nu bokk ak moom dëkk bi war naa toog wax ak nun esa sante nun xool li xamante mooy sunu yërmande tey doxal dëkk ma ànd seex nun loolu mais du nu massacré du nu sonal sonal nañu du nu dawal fi nekk benn éclaration bi bi massa tantuwaay bu toll nii amul benn pot loolu mooy problème am bi maire bi loolu mooy liggéeyam loolu mooy ak taam loolu la war a présenté pour bilan financier am bu fi jógee loolu la war defar rapport mais loolu amul baleen bi ma si tegaat muy ministre Amadou Gueye tey jii nag ma gis dafa def lu rëy dégg nga secteur de la pêche te ku ne de la wax si marché bi marché baa ngi Omar ma mosu fee ñëw xool ba xam la noo dundee ak la noo jànkontee war nañ sa guddi dem nañ bëccëg lu ne wax nañ kan ba léegi benn solution amu fi léegi nag comme demee noonu te léegi nag ñun dañu bëgg dañu bëgg suñu bopp ba ñun suñuy jaboot suñu suñuy doom la noo dawal léegi nag comme dañu xañ suñu àq ak suñuy yelleef ñu ngi jëlee bopp suñu responsabilité jeunes yaa ngi yaakaar naa firnde ngeen ko yaakaar naa ne loolu nag fi mu nekk loolu mooy wax bi xamante moo gën a essentiel su fii beneen bis des président Thierno Mbengue mooy président des maires du Sénégal masu fee ñëw xool ba xam lan la waa Mansara dunde amul kenn ku ko yëgul Souleymane Ndoye mi xamante ne moom la président Macky Sall nañ si moom ba léegi bi dafa gën a yokku sax gën a reversé wu indu nag moom wax dëgg yàlla nun amul dara du am moom parce que moom la dem na si gis albe wax naax moom nee day ut xaalis day liggéey mun na tamit na ut xaalis dañuy liggéey ana mooy sunu kilifa dafa war a xool li xamante ne moo nu arrangé mu defal nu ko waaye nag war la jël leneen di ko def fi mu nekk dafa balaa commencé balaa ne yoonam new si comprendre nga léegi nag comme ñoom yoonam new si ñun suñu yoon a ngi si ba sa biir ñun nag noo kaa fajal suñu bopp